salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp te sant lool yàlla sant ahmadul xaddim ndax sallaaw lii coobareem la te ñaan ci ko fi nekkal te mat ko sëkk di sëñ Muntaxa Balla sa buri yàlla gën ko fi déeg yàggal ko fi yàggu kiimaan waaye ñëw ci na ma ko daa waxee rek bu lëg mosa yàlloom na ko gërëme coy duñ ci dara xëy na mën nañ ne du ngeen ci dara waaye ci ngeen maa ngi koy fàttaliku bi fii la ngeen waxoon génnu leen ci mukk bu suut dee am ñun ñoo suutle yamaluwuñ leen ñu fenn lépp lu ngeen gis muy bunt bu tax tawfiix dolle ko ngeen teg nu ci kon tey bu sub barkeelu rekk la liñ fi fekk ëpp lii fuuf waaye luñ fi mës ni jëf indi ko fi yéene lañ ko jëfe waaye xeeb ko lool ndax ndax ndax li jiitu lii dara di see taqut lépp a set wicc wuruñ ci ndombo dara bañ a àndeeg ba léegi yàlla gën a yàgg. sëñ ndongo mbuub dama ko noon bàyyi ndongo lu yàgg dëgg la mu ne ma diir ba asal lu yàgg ti jëm ci yàlla mooy dëgg te lii dara ci loolu yàlla raxu ko kon ñu sant bu baax a baax a baax a baax. bu subaa lii waaw waaw jërëjëf damay wax ni fii fi fi fi nga teg mbooloom ilhaamu latiful xabiir bu ñu juumut dañu naan fa nga ñu teg moo raw fuuf fi nga teg mu xaddimatul xidma te mën nañ ko wax katawaay ndax ab yenn nam la diise képp ngay xam xamoo nam diise keneen waaye ñii li nga leen dénk mat nañ ko sëkk ndax boo leen dénkoon na leen ay wëjeen defe leen na ngeen war a defe te sàllaaw mu suut day suut loo bëgg bëgg mu jag du jag gàllankooruñu dara toppante nañu wax naa leen sànq ne maanaa ak toppante ci mu xaddimatul xidma laa ko jàng ku ci nekk la ci di ab cëram da koy topp lay cëru keneen ka mu jàppale ko ca te du ko ca gàllankoor dara lii dama ni lu lu ñu fi indi la mu fi daa ñëw la jiitu jiitu na waaye lii nga xam ne moo yegg si tey di barkeelu rek ci ci ci ci lu ñu ne ñun am yéene nekk caak ñoom buñ dee ay gor lu geen nekk lu ne ñu ànd koog yéen ndax li ñu am jomb nañu barke bu ëmul xëddiim jomb nañu bu noonu koon sëñ bi dama naan jomb nañu tey damay wax ni sëñ Tuubaa ñu gën a njëkk a jomb laata leneen di ñu jomb kon lii ñu fi am jomb nañu te kenn womatuñu bañ yegg si foofu ku dul yéen. barkeelu la bu daab si la daa dikk ñu xeeboon loola te gën a xeeb lii te ñaan yàlla rek mu wéy ñu ànd ko ba fi mu ba fu mu jii kon junniy mburu lañ fi indi téeméeri mbuus yi ndox ak ñaar fukki juróom-ñett ñaar fukki paquet yi ndox yu ndaw ak juróom-ñett euh, ñeenti tàndarma yu importe bu Tunisie ak juróomi carton yu Precia fukk fukki carton Precia ak benn paketu beurre ñaari ñaari ak ñaari chocolat ñaari bër ak ñaari chocolat ñaari fromage juróomi carton yi Gloria ak ñaari carton yi corne xeeb ko lool sàllaa bu ñu sañoon lépp lu bët mën a tege ñu indi ko fii tey it luñ fi indi nu mu mënti toll it ëpp fi ndax fa mu jëm a tax jàddut feneen fi mu jëm keppat ngeen ngeen koy ngeen ko fi fi fi mu war a jëm képp ngeen ko dugal kon luñ fi mënti indi luñ fi mënti indi jotut lañ fa war a indi asakay lañ fa war a indi te luñ fi mënti indi xeeb nañ ñu ñaan lool bu sa ngeen yàgg fi lool ci turu Baye Abdou ci turu Ngoy yëpp. ci turam ilhamuna tiful ga xabir yëpp xol ñëpp sedd na ndax daa mel ni da yéen yéen yéen a teg seen loxo rek lu ñu songit dañ koy daan gang buñ ko yërnoo bi ci biir dañ naan sallaa ñun ñu ñu bëgg a liggéeyal képp ñoo ciy teg seen loxo kontaan nañ baax tey gërëm yàlla na yàgg taxawaay bi gën a yàgg lool bu soo sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp suñ xol sedd na guy salaamaaleykum wa rahmatullah seen jëf da ko firndeel ndax ku jël li nga gën a bëgg daal Serigne Abdou Diallo nga bëgg mu jox ki nga bëgg mu sëñ Tuubaa wàcc na li wax lépp sëñ jëf firndeel la ko gis nañ lépp noonu nañ lépp yàlla yàlla fay jot nañ ak cant bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imaam mi jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Serigne Abdou Lahad bu sa mu talib mi fi teew nii di secrétaire général ak Serigne Abdou Lahad mi yor culture. ak suñ Fallou Mbacke mi yor organisation suñ Matar Kan mi yor communication ak suñ Jili mi yor site bi ak yeneen kilifa yi nekk ci jotaay bi yëpp suñu <coughs> yàdd ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu mboolem waa daayira Ilhamu Latiful Xabir bu Tubaa Ngooy di nuyu suñu Abdu ak ñi nga àndal liggéey bi yëpp di santate yàlla bu baax ci ñëw gi ngeen ñëwati ndax njëkkoon ngeen a ñëw ndax at yii yëpp ni ngeen ko tàmbalee woon ba ngeen gisee at yële ñu daa am buñ tolloo ci koor gi da dajale bisaab ngeen teg ci seen bët daal di am yéene bunt bunt boobu daal di saafaraw ngeen def ko sas ak léegi bu ñuy xalaat lu ñuy jënd boole booleetuñ te bisaab la ci war lépp yéen a koy def bisa bisaabu koor gi yëpp yéen a koy def ba nopp bay ko nag muy lu lew lu wutal ko tool bay ko andi ko ci jumaay Sëriñ Tuubaa tey jii mu dellooti waat ñëw ngeen ñëwati nii ci ngeen indi yépp ni ko sëriñ Afia waxe li ngeen indi bari na loolu lim nga ko waaye li nga xam ne ñëpp maa siwul ni moom ngeen gën bëgg seen adduna da ngeen ko andi ci ki ngeen gën a bëgg seen adduna ak àlaaxira bokk na ci li séeréer gën a bëgg ci addunaam sëriñ Tuubaa lañ gën a bëgg adduna ak àlaaxira kon day teg ci ne yéen li ngeen gën a bëgg lépp jox ngeen ko sëriñ Tuubaa ak yi ngeen ci doole yëpp ñu leen nuyu ci di leen sant ci tuddaayir Moukhaddamatoul Khidma ci jëf yi weesu woon te yëpp rafetoon te waxtu nekk ñu ko daa ànd te ànd gi ñu koy ànd musuñ cee gis lenn lu ñuy sebet musuñ cee genn gis lenn loo xam dañ naan ko lii buñ ko xoosoon ci ànd bi dana gën a baax ndax waxtu ngeen jóge ba ñëw da ngeen di jóg ñuy ñëw ngir liggéey xoolu leen li ngeen war a def lañ leen def loo ngeen di xool te lu ñu leen def loolu ne yokku leen ca dara wàññiwu leen ca dara xool leen dafa metti nañ ko wàññi xool leen daa yomb nañ ko dolli li ñuy wax wéyee ndigal dëgg dëgg dëgg yéen yéen ñi ko def ti noppal ñu lool muy daayira boo xam ne daayira la waaye daayira la biir ci daayira Moukhaddamatoul ma ndax seen lépp jumaa ji lañ ko jox di bàyyi seen i liggéey seen i métier di ñëw di ànd ñu liggéey bi di dajale seeni i ñaq seen i alal yëpp di indi ci liggéey bi ak seenu bëgg kon xidma bi ak xubb bi ak xaddiya yëpp dugg na ci yéen kon ñi ngi leen di sant bu baax ci turu daayira Muxaddamatu Xidma te di leen xamal ne jaajëf daa mënta weesu jaajëf waaye ku jëfut am seen jëf ji rëy na man na yaatu na ñi ngi lay sant bu baax ci teete gi nga teete gone yi ànd ak ñoom ci liggéey bi te wonoo leen leen lu dul sëriñ waaye di sant ndaw yi nga xam ne nangoo nañ laa topp te boo leen wanee bi nangoo jëm fa nga leen woon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci turu Sëriñ Aafiya ak mboolem waa Ilhaamul Latiiful Xabiir ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan liggéey bi ngeen yàggu fee andi te yàgg ñu fee fekk ti mu ànd jëf ji yaatu ti jëf ji ànd ak ngërëmal Seexul Xadiim ti liggéey bi yàlla na gën a yaatu ba ci suñuy setaat te seytaane bu mu ci amu yoon te yàlla bu buñ ci gis suñ bopp yàlla nañ ci gis Sëriñ Tuubaa rek lépp loo xam ne jëf nañ ko ci rew ak képp koo xam ne jëf na ci ànd koog yéen moo xam ñëw na wala ñëwut waaye def na ci ñaqam wala pexem wala dara ba tax lii ngeen dajale yomb kenn ko ci nekk lam ci yéene lam ci bëgg yàlla na ko ci yàlla fàggul la kaw njortam ci bàkki Seexul Xadim ñi ngi leen di sant sant mënta weesu sant ñi ngi leen di bàyyi bi mu ñaanal leen ñaan mënta weesu ñaan ba ngeen yéene boo liggéey ngeen mën la ko ëpp ci bàkki Seexul Xadim sant nañ leen gërëm nañ leen séeréer bu joxe mburu mu toll nii ci weeru koor xam ne jox na li mu gën a bëgg yàlla mi fay yan li yéen bokk fay ci bàkki Seex Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu doole sant rek aussi ñu joxe ànd gi moom ci dara xam nañ suñ bëgg liggéey euh, mat te sot te rafet moo tax bool nag yéen ndax bari na foo xam ne bu ñu fa nekkutoon yaakaar nañ dana am rëq-rëq kon nag sëñ Tuubaa mi nu boole ak yéen ba ngeen nangoo nii nii ngeen nangoo moom moom liggéey bi. moo leen ci dugal moo na boole ak noonu moo na boole ñun ñëpp di di teete kon yal na yàlla teete yàgg teete rek ak suñu taatu ku nekk sa bëgg yaa ko xam suñ bi defal la ko rek fii ci lii ak ca leneen barke borom Tuubaa ngi sant bu baax tey gërëm jërëjëf jërëjëf. wala tuhammilna ma la taqata lana bihi jërëjëf